ne dafay daal law ci biir réew bu Sénégal naka tey a ci li nga xamante ne moom mooy kon jëm ci li yéenekaay yi te xëyee niki tey jile jàpp leen na njiit réew bu Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal dina ca yey yàbbi ni kii démb wala sax ak barki démb demoon na fa nga xamante ne kon moom mooy kon ca Popenguine ngir daal di waxtaan ak yenn ca autorité yoo xamante ne nekk nañu foofu nag ci li nga xamante moom moo jëm ci euh, doxalinu réew ci biir Sénégal naka noonu Bassirou Diomaye Diakhar Faye ba tey ci li nga xamante moom moo jëm euh, ci taxawaayam ni kii euh, kon ci gaaw gi demoon na foofee kon ca Cissés ca Fiera mu nekk kon nag xew-xew bu am solo boo xamante ne amoon na fa jëm ci wàllum la ñu duppee nag maanaam mbay mi ak ñoom seen Bassirou Diomaye Diakhar Faye xam ne ni kon jawrin bi nga xam ne moom moo yor ci wàllum mbay mi ci biir réew bu Sénégal am na ci wàllu bu baax waaye tamit askanu Sénégal ci seen bopp ku nekk am na ci taxawaay bu dëgg boo xamante ne war na ko nekk nag loo xamante taxawaay bu am solo lay doon ci li nga xamante moom mooy jëm ci boobu leen mbir Ousmane Sonko ak ay taxawaayam moom tamit ñëw na ci yéenekaay bii di Le Témoin quotidien ni ji lañu daal di jàpp ne kon bu ñu bëggee soppi lépp lu jëm ci wàllum njàng bi ci biir réew bu Sénégal foofu tamit eh, ñu xoolaat li nga xamante moom mooy suñuy taxawaay waaye tamit a jëm mu ndaje bu am solo woon Ousmane Sonko am ko ak ñi nga xamante ñoom ñoo ŋànk lépp lu jëm ci wàllum njàng eh, ci biir réew bu Sénégal yéen bi di enquête ñëw di ñu wax ne ñu ngay daal jëm eh, ci coppite lu jëm ci wàllum juge bi maanaam euh, lu jëm ci wàllum secteur judiciaire bi ci biir réew bu Sénégal moo tax ñu daal di ñuy bindal ne kon vers un vaste chamboulement fekkente ne kon ci lu jëm ci wàllum magistrat yi ci biir réew bu Sénégal benn xibaar boo xamante ne bari na yéen kay yu koy daal di wax ni ki tey jëlee muy teg loxo bi nga xamante ne teg nañ ko loxo kii ñuy duppee Bah Diakhaté ni ki démb lañ koy daal di foofee kon yóbbu ko euh, ca la nga xam ne moom mooy kon euh, DIC di euh, division des investigations criminelles coow ba nag na jamono ndax war nañ koo daal di tegani loxo gannaaw kaddu yamu yëkkati am déet ndax waruñu ko tegani loxo yéen kay yu bëri nag daal dina cay xëy yéey yàbbi ni ki bu ci mel ni kon Vox Populi ba sax Walf Quotidien ñoom ñëpp daal dina cay wax ni ki tey moo jëm ci wàllum wàññik dëkk ci biir réew bu Sénégal jàpp kon loolee yëpp am na ay mbir yoo xamante ñoo ko war a jiitu ni ki tey les d'une baisse forcée la ñuy di xam leen ni ki kon yéen kaay bu Walf Quotidien yéen kaay bi di bés bi le ñoom tamit ñaari ponk lay daal di wax ni ki jële jëm nag ci li nga xamante moom moo jëm ci pèlerinage marial Popenguine bi nga xamante xew-xew bu mag la woon ñeel wàllum diine ci biir réew bu Sénégal 136e teg loxo bi nga xamante ne teg nañ ko loxo kookee nga xamante ne moom mooy Bah Diakhaté sànq maa ngi koy wax waaye lépp lu jëm ci wàllum euh, bu Sénégal la ma ngay daal di jóg gannaaw ba nga xamante ne kon euh, kii nga xamante moom mooy Jean-Luc Mélenchon ñëw na ci biir réew bu Sénégal ñu yëkkati fi nag ay kaddu ba tey euh, fi mu ne nii dafa ak gis-gis waroo na bu fekkee ne yéenekaay bii de Tribune nee na jëpp lu jëm ci wàllum criminalisation li ni mel ci biir réew bu Sénégal Macky moom ci boppam xamaloon na ne réew bu Sénégal parewul waaye jamono ji Macky Sall moom dem na Ousmane Sonko Sonko taxaw euh, la mu xam ne rek mooy jamono ji euh, tolo Sénégal lépp loolu dem xam ne jëm na ci wàllu mi ni mel dañ koy daal di toléré loolee la yéenekaay bi daal di xam ne ni ki tey Macky pas prêt mais Sonko euh, tolérant par rapport donc ci li nga xam ne ñu ngi koy waajal ci biir réew bu Sénégal ak taxawaay bi nga xamante am waaye ni fi mu ne nii góorgóorlu yi sonn nañ te jaaxle nañ ndax am xar naa ne moom xar yi moom tàmbali nañ ko waxtaane loolu lu am solo la jàllalu yàlla ñu yàlla mooy xar rek <laughs> daaw ay foofu la ñuy daal di ndar foofu lay jeexale <laughs> Senghor daaw jooy nga fi